ñoo dugaloon motion de censure ne leen balaa seen motion de censure boobu sax di jàll amaan na du leen fa fekk ndax dina fekk ñu tas li nga xamante ne moo di assemblée nationale euh, mais dafa am euh, li nga xamante ne moom la wax lu ama am solo mooy li nga xamante ne moo ko motiver pour mu tas assemblée nationale bi parce que man ni ma comprendre cela veut dire que ñi nga xamante ne ñooy député yi faree ci kucc gi <laughs> amoon na ay mbir yoo xamante ne bu ñu ko defoon amaan na tas assemblée bi mën naa ñàkk parce que moom nga xamante ne moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na euh, débat d'orientation budgétaire bi nga xamante ne loi bi moo leen ko sant pour ñu def ko ñoom député dañ koo boycotté ndax li ñu am li nga xamante ne moo di majorité te dara waral ko li du mbirum politique fayantoo ak li ni mel bu loolu weesoo ñu ñëw ci li nga xam ne moo di ñaari institution yooyu la di au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental te ñu jàpp ne nekk na ay institutions yoo xamante ne dañuy coûter cher état bi te amalul njëriñ bu bëri li nga xamante ne moo di askanu Sénégal bu loolu weesoo ni nañ dañ koo bañ voté ñoom ñi nga xamante ne ñooy député yu faree ci ku jegi donc moo tax moom nga xamante ne moo di euh, njiitu mi jàpp ne député yi kat pare pour gunge ñi nga xamante ne ñoo di réew mi ngir ñu mën a liggéey donc loolu moo tax nee nañu pour mën a liggéey ci cinq yi nga xamante ne la ñu dëgmal ñu daal di tas li nga xamante ne moo di assemblée nationale bi et pour man loolu dafay wane ne rek député comme ni koy faral di waxee waroo nekk député parti waroo nekk député euh, benn président waroo nekk député benn ki nga xamante ne dafa nekk rek pour ngay satisfaire ay besoins mooy da war a nekk député peuple bi parce que peuple bi moo la fa taaj parce que tey jii bu fekkante ne député nga xamante ne ñoo nekkoon ci opposition bi jiital nañ li nga xamante ne moo di volonté sénégalais yi dinañu nangu li nga xamante ne la la ñu bëggoon a jàllale ca fële euh, ca assemblée nationale bu loolu weesoo Amina lenn rek wala sax li ma gën a neex ci mbir mi mooy euh, njiitu réew mi mu ngi ci timing bi cela veut dire que dañ ne la bu fekkante ne tas nga assemblée euh, ci diiru deux ba trois mois lañ la may nga daal koy organiser donc boo ko calculer defe naa su ma jumul ci soixante ci soixante six ci soixante six jours la toll. Mm-hmm. donc cela veut dire am na deux mois ak li nga xamante ne. Euh, moo di six jours bu loolu weesoo dafa am benn euh, émission bu ma déglu démb ngañ démb di ci expliquer mu ne bi nga xamante ne njiitu réew mi ngi bindoon na conseil ñaari mbir la bindoon beneen bi daf ko bind ndax mën naa tas euh, ban jour wala sax ban date laa mën a tas assemblée waaye bu ma ko tasee ba pare ban date laa mën a jàpp li nga xamante ne moo di élection donc ki nga xam ne moo di Bassirou jamaa Diakhar Faye mënoon na jël rek décision décret daal di tas li nga xamante ne moo di assemblée mais wane na ne respecté li nga xamante ne moo di suñu ay institution waral mu dem laaj na nga xamante ne ñoo di waa conseil constitutionnel ñu jox ko date et ci mbir moomu la daal di euh, tënkoo pour tas li nga xamante ne euh, moo di assemblée nationale bu loolu weesoo pour man jamono ji ñi gën a ñi gën a ñi gën a ñàkk chance euh, ci élection législative yi Amina mooy ñi nga xamante ne ñooy faree ci kujje gi je m'explique parce que xam nga dañoo fa am mbir mu fi jàll élection dafay doog a jàll te élection ba mu fi jàllee ba léegi matagul un an donc confiance bi nga xamante ne sénégalais amoon nañ ko ci ñi ñu fal ba léegi dañagul donc ñoom ñoo gën a am mille chance li nga xamante ne wala am majorité assemblée nationale député yi nga xamante ne dañuy doog a génn pouvoir et que dafa am mbir boo xamante ne doxoon na digganteem ak ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi donc man am naa yaakaar ne assemblée bi dañ fa gis écart boo xamante ne mosoo koo gis ci li nga xamante ne moo di assemblée yi fi doon jàll yëpp euh, bu loolu weesoo mbirum li nga xamante ne moo di finance publique yi ñëw na ci ab transparence boo xamante ne bëgg na mu am ci waaye tamit bëgg na bu baax a baax mbir yi leer parce que yaakaar naa ne mbir moomu nekkul euh, Diomaye jaxaar fay rek moo ko bëgg mais mën naa ne demande sociale la parce que yaa ngi dégg boobu ba léegi naan reddition des comptes nañ gaaw ci mbir yi mbir yi dafa war a leer parce que yoon ba nga xamante ne yoroon nañ ko alalu réew mi ñaaw na jekkul donc dafay baax mu leer bu leeree nekkul dañ dafay leer pour ñi nga xam te ne ñoo fi jógee mais dafay leer sax pour ñi nga xam te ne ñoo fi nekk parce que déwén ñoom rapport yi bu ñëwee ci ñoom lay daal di tënku donc xam naa ne daal Amina li wër li wër te wóor mooy euh, les jours à venir dina nekk ay bés yoo xam ne ñun mm-hmm. journalistes yi dañ am liggéey bu baax a baax parce que dina nekk jour yoo xamante ne conférence de presse yi dina bëri uh-huh. coalition yi dina bëri parce que lan moo lan moo tax uh-huh. mbir mi moo xat du fi xaj déclaration sur déclaration. yu bëri du fi xaj te xam nga ne euh, euh, li nga xamante ne moo di euh, mbirum institution bi code électoral bi daanaka leneen li moo gën a kawe code électoral bi donc mbirum parrainage yooyu dalee leer na instant bi xaju fi du am. parce que Ngagne Demba expliqué na ko moom mi nga xamante ne moo di conseil constitutionnel jox na ndogal comme lii cas exceptionnel la mbirum parrainage yooyu mu daal di tëb donc fi mu ne nii lenn rek mooy mooy mooy possibilité gaaw amal li nga xamante ne moo di élection waaye tamit dem ci li nga xamante ne moo di campagne législative yi nga xam ne jàpp nañ ko le 17 novembre. voilà incha allah mhm. euh, professeur Sougou ñëwaatal ñu ci discours bi ak lañ ca daal di tànk. waaw euh, ngi lay ziyaaraat. soxna Aminata Ndiaye. je pense que sax daanaka sax wax nañ lépp mais xam nga rek liñ naan nag euh, wax waxaat du yàq wax mais démb le président de la république comme ni ko ñëpp doon xaaree euh, def na discours discours président de la république nag euh, wax dëgg yàlla am na ay points yi nga xam ne évoqué na ko fa e je pense que nekk na loo xam ne daal bettul ñu bëri. parce que doon nañ ko ci xaar et que nekkoon na benn souhait euh, ci ñu bëri ci sénégalais yi yenn décision yi nga xam ni jël na ko fa ak yenn yi nga xam ni yëkkati na ko fa comme ay euh, comme ay comme ay comme ay wax euh, mbir yi nag xam nga dafa dafa yaatu comme niñ ko waxee wax na ci lu jëm ci finance publique te suñ ko waxee rek dañuy xalaat tamit li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu reddition des comptes ñi nga xam ni war nañ leen topp ak ñoom seen ñi nga xam ni dénkoon nañ leen na loo xam ne c'est structure publique ñu war a rendre compte en réalité et ba tey defaguñ ko mu nekk tamit benn mbir boo xam ne c'est une demande sociale comme ni ñu ko xamee euh, loolu tamit la nekkee demande sociale euh, ñu jox borom kaas bi kaasam <laughs> noonu tamit nekkee demande sociale euh, li nga xam ni moo doon tasub assemblée nationale xam nga. le point le plus saillant bi nga xam ni démb euh, discours président de la république retenir nañ ko ci mooy dissolution assemblée nationale euh, mu nekk nag euh, benn mbir boo xam ne comme ni ma ko wax ni ma ko waxee dafa nekk benn demande sociale suñ nee nag demande sociale bu ñu yaakaar ni ñëpp ñoo ci ànd mais même bu dee la minorité sociale sax daf ko laaj demande sociale lañ koy wax parce que am na ñoo xam ne moom moo leen gënal am na ñoo xam ne moom mooy seen préférence du solution boobu nag Ami Cissé wax na ko euh, bettul ñu bëri et que nekkoon na lu ñu doon xaar léegi nag benn mbir moom mooy am mooy que à chaque fois rek bu ñu gisee ab mbir ñu wax ko walla ñu teg walla ñu jël benn décision dina am ñoo xam ne ils sont pour dina am ñoo xam ne ils son contre et que démb wax naa ko fi je réitère mes propos. mooy que pour que le président puisse gouverner de la meilleure de manières il faut que mu am une majorité à l'Assemblée nationale léegi nag mbir mi dafa xaw a nduróog genre dóor dàkke ñu ko doon wax ni piège la mooy que président peut-être amoon na yéene tas assemblée nationale pour am majorité mais il faut nga am foo jaar et la nga xam ne nag moom mooy benn stratégie bu mu tegoon ñu ñëpp ñu gis ko mooy woote pour ñu di dissoudre ñaari institutions yi di HCCT ak conseil économique. qu'est-ce qui s'est passé ñëpp xam nañ ko mooy que député yi nga xam ne ñoom ñoo majoritaire dañoo refuser mbir mi et démb évoqué na ko ci discours am amoon na yéene tas institution yi parce que gis na ni xaalis bi nga xam ne moom mooy dugg ci institution yooyu xaj na feneen ci dëkk bi war nañ ko mën a dugal feneen pour jooyanti yenn mbir ci